donc rencontre boo xam parce que je ne bi bi Sénégal président de la République jël décision école mais mu jox ñu instruction nañu génné ay méthodes même suñu nous kër a projet bu Promé enseignement à distance lolu nak euh, wax trop parce que nous ko lancé ba ministère de la culture jox ñu déjà canal éducation Canal d'éducation ben tel la bo xamné ne lañ doon defee ay cours ay cours yu bax pour les classes d'examen ba tax ñu am ay résultats yu bax légui encore gis ngeen nak que toggé fi légui fii léegi gis ngeen que am na démonstration bi def moy ben professeur moy wax non seulement muy mélanger anglais ak anatomie ak biologie ngeen gis que c'est beaucoup plus facile que prof bi ñëw di dessiner di expliquer xal élève bi di xalaat donc ñu wax ne rek le numérique ak enseignement lu am solo la et commencé nañ ko def en tout cas ci biir Sénégal di indi ay ressources yoo xam ressources numériques la ay cours la ay exercices et cetera donc di wax ne rek en tout cas kontaan nañ le fait que le ministère du numérique accompagne ñu partenaires techniques et financiers ñoom ñëpp gis ngeen leen tey di wax ne rek élèves yi ñoo parce que léegi fi ñu nekk si àddina bi dañu war a jàng partout waruñu seulement yem si classe boo xam ne quatre murs loolu moo am si yenn réew mi loolu aussi le président installé fii Sénégal. comme ça ñu am toujours ñaari levier mooy présentiel mooy à distance te loolu nag réponse la boo xam ne éducation nationale léegi la ko commencé installé fii Sénégal et je crois que condition yi réunir na pour que ñu mën a dem kanam